duyuufa rasulillah ci bii almahfal alzahir ak almajlis albaahir tahta hadihi alxayma almunifa fi hadihi alleyla alsharifa leylati alanwaari walbarakat leylati alasraari walxayrat alleyla alsaabia min mawlidi xayri albariyat ci lañu bëgg a sànni ay baat gannaaw bu ñu nuyoo kilifay xadra bu tedd bi jiital ci nuyoo bi xaadimul umma mawlaana al cheikh sayidi muhammadul maahi maahil jahli wa maahil gabaawati wa maahi التفرق والتشيع أيده الله ونصره di nuyu mbooleem ay rakkam bàyyiwuñu kenn di nuyu al imaam al cheikh Ahmed Tijaani Seydi Ali ak rakkam sunu soppe Seydi Mouhamadul Mahi Ali Cissé ak mbooleem al abnaawul xadra waa ñi ciy beral nuyoo nag sunu soppee sunu wëllëre raisu lajna saqaafiya di cheikh Mouhamad Sirajuddin ñaas mi nga xam ne ñépp gis nañu taxawaayam bu rafet ci programme bile ma leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci guddi gu barkeel gii di ziyaare mbooleem réewi Sénégal yépp fa tabaarakallaahu di leen ndokkeel ànd ak ay kilifa yu mag ñu gën cee xàmmee alxaaji Cheikh Diallo mii lang ak man ci sama wàllu ndeyjoor bàyyi ko ba Gàmbi maamam Muhammad ibnu Ibrahim al Fuuta Jali njëkk jaasal jaasaal maam alxaaji abdoulaye ñas ci ab tariqa tijaaniya maamam jële ko ci cheikh umarul fuuti mu ngi ni toog di nuyu mboolem xadra bi yépp xalifa bi ak ci rakkam mu nekk sunu nijaay mbokk yi dañu nekk ci bésu juróom-ñaareeli fan ci weeru arabiil awal maanaam dañu nekk ci bésub juróom-ñaareeli fan ci gane àdduna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci arrabiul awal muy yowmul ismi ak laylatul ismi loolu nag dégg nañu li ci sayidna baddi ibnu sidina al alawi wax ñu yàgg ko miin a dégg ci péey bi ci jotaay bi ci làmmiñu cheikhul islaam mawlaana alxaaj ibrahim ahlan bi yowmin summi muhammadan xayrasmi ramzan li maana al ismi min jaddihi li yanjali bi xamdi lawalina lahu walaaxirina fa kaana za yaqina min alkarimi almufdili loolu mu ngay gàttandu mu ngay tatagal mu ngay ndokkeel bésub juróom-ñaareel bi nga xam ne moo di bésub juddu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi di tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru rabiul awal nga xam ne fukki fan ya ak ñaar di ramzu yabin tolloog xarafi laa ilaha illa allah tolloog xarafi muhammadu rasulullah ci taarix boobu la yonent bi feeñ ci àdduna ci bésu altine di ñaareelu bés moom yonent bi muy ñaareelu feeñu waayu yàlla ci kaw suuf waaye nag bésu tuddam bañ ko tuddee turu muhammad tur wu tedd wi nga xam ne maamam abdul muttalib la yàlla ilham mu tudde ko ko bi mu ko koy tuddee ñu laaj ko lu tax nga tudde ko muhammad te aw tur ci xeet li liñ ci doon baaxoo mooy say nijaay mbaa say baay tax am ku ca tudd tur wa ñu tudde ko ko ngir terale ko ñu ne ko lan moo tax nga tudde sa doom ji muhammad sallallahu alayhi wa sallama te tur woowu amut ci ay nijaayam amul ci ay baay xam mu ne dama yaakaar an yuxmada fi samaai wal ardi wa an yuxmada fi l awalina wal axirin ne dama dama ko tudde muhammad sant lu bari loolu lay tekki ci làkku wolof loolee nag la tax ma tudde ko ko mooy damay mébét waa asamaan ak waa suuf waaye jëkk ak way mujj ñoom ñépp ñu daldi koy sant gërëm ko ngir jikkoom yu rafet ak melokaanam wu tedd loole yàlla def ko mu nekkoon ilham ci abdul muttalib ngir ne leeru yonent yàlla muhammad li tàmbalee ci baayam abdullah ba ci maam aadama abul bashar mosta jaar ci ndiggal yéefër lam yazal nuuruhu bi ayni ilaahi fi intiqaalin fi lkawni baada intiqaali comme ni ko mawlaana cheikh al islaam ibrahim waxe ca laami yàmba yonentu boobu nag bésub tuddam tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru rabiil awal fukk ak juróom-ñett encore di raqmu bu foor ndax moo jàpp turu yàlla bi ñuy wax xayyun di aji dund loola moo wone ne yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xayyun axada an xayyin wa yunzirul axyaa moom yonent bi aji dund la ju bàyyi ju jële li mu am ci aji dund ji dul deeta mooy yàlla en même temps li mu yor moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi koy mën a aw dékku ko jëriñu ci mooy ñi seen xol yi dund comme ni ko suñ boroom waxe ci quraan li tunzira man kaana xayya yonent boobu nag sallallahu alayhi wa guddi gi ñu daje fii tey am lu muy tegtal ci jeexub cheikhul islaam Mawlana Alxaaji Ibrahim Ñas ci moom ngir ne bàyyi ba mu ne faman raama darki fi ishtiyaaqi nabiyina faqad raama amran mustaxaalan muharrama ci tënk mooy ne rek ni ma mel ci cofeelu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yombul kenn di mel noonu ba mu waxee loolu da koo firndeel ci lépp am na fu muy waxee naan muhammadun umdati muhammadun wazari ana tufayliyuhu wabni musammaahu yonentu yàlla muhammad mooy sama sukkandikuwaay man alxaaji ibrahima ñas yonentu yàlla muhammad mooy sama wéeruwaay man maa di jawriñam ji nekk bu sell te duma dagg gàncax te bépp doom bu ma am ab doom la doom sama doom yépp tuddi naa ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye gis nga li ko yàlla defal ci mawlidul rasuul am na fu muy naan bi mawlidil haadil haadil bashir sabqi sagira walkabir boo gisee ma raw ndaw mu ngi ci yàlla ya mooy fonk gi ma fonk juddub yonentu yàlla muhammad man alxaaji ibrahima Niass ndax gis nañu ñooy màggal bésu juddu bi yem ca gis nañu ñuy màggal bésu ngénte bi yem ca waaye nag boole bésu juddu yonent bi màggal ko ba ñu yaakaar ne fa yem bésu ngénte ba ñëwaat nga màggalaat ko ba ñu yaakaar ne sax bu jëkk ba amul woon loolu liñ ko xam ci àdduna ci ñaari bërëb la mooy zaawiya faas fa mawlaana cheikh sayidi ahmad tijaani tëdd ak fii ci madinatu madinatu cheikh al islaam alxaaji ibrahima ñas ñaari bërëb yooyu lañu xam ñuy boole bësu juddu bi ñu màggal ko waaye itam bésu ngént bi ñu màggal ko ci benn semaine te benn ndaje bu ci nekk dangay yaakaar ne moo gën a rëy ba ca toppoon laaya boobu nag sun borom di wax ci alquran wa kullan naqussu alayka min ambaai rusul maa nuthabitu bihi fuaadak wa jaaka fi hadihi alxaqu wa mawcidatun wa dikra lilmuminin laaya boobu junju na ay fawaid yu bëree bëri yoo xam ne dina yee ab jullit pour lan mooy gën a dëgëral ngëm ndax ngëm bu dee ci sunu aqida la aqidatu ahli sunnati wal bi ñuy tuddee aqidatul ashairati dañu ne al imaanu yazdaadu wa yanqus ak ngëm yàlla dafay dolliku ak ngëm yàlla it day wàññiku liy firndeel ne nit ki ngëm yàlla am dolleeku na mooy ziyaadatu al amali saalihaat mooy dolliku jëf yu baaxam waa ji daawul dem jàkka daana julli waaye daawul dem jàkka léegi mu ngi dem jàkka loolu firnde la ci ne ngëm yàllaam dolliku na waa ji fonkoon na zikkar fonkoon na naafila fonk jàng alquran mu toog ba yàgg loolu yëpp mënatu koo def benn yoon lépp day diis ci moom day jafe ci moom loolu firnde la ci ne waa jooju ngëm yàlla mu ngi wàññeeku kon ngëm day yokku ngëm day wàññiku yàlla nag sunu boroom alquranul karim daf ci am ay luxaat ay façon waxin am na lu ñuy tuddee alkinaayatul ilaahiya muy ay dàkkentali yàlla léeg-léeg yàlla dana jël laaya adressé ko yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa fekk du yonentu bi lay waxal comme li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar laaya jooju ay li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zunubi ummatik noonu la ko ibnu abbas firee ak ñeneen waaye du moom yonent bi ndax yonent bi amul bàkkaar ndax ma almaasum la sallallahu alayhi wa waaye ngir teral gum ko teral ak wone ne njéggal gi yàllay jéggal xeetu yonent bi seen bàkkaar yu jëkk ak yu mujj ñu ngi ko am ngir barke yonentu yàlla muhammad moo tax mu jël njéggal ga adressé ko yonent bi aaya bii suñ borom di wax ne wa kullan naqussu alayka minam bàyyi rusul xisas yooyu nettali yi yàlla di nettali yonent bi ci solo yonent ya ko jiitu woon ne ko li ma li ma la ciy solo ak di la ko nettali lépp man yàlla dama ko def ngir dëgërale ko sa xol ngir gën cee yokk sa yaqiin gën cee yokk sa kóolute dëfal la ba li ngay jànq jànkuwanteel ci ay jafe-jafe ci sa oote bi ngay oote ci saw xeet yow yonent bi sallallahu alayhi wa bu boobaal nga mën a muñ ca loole wéyoon ca la tàmbalee ca sa maam aadama abul bashar wàcc si ci yonentu yàlla idris ba ci yonentu yàlla nuuxun yonentu yàlla huudu saalix alayhimu salaam ba ci yonentu yàlla ibrahima abul ambiya wàcc si ci ambiya u banu israil yonentu yàlla Muusa ba ci Suleymaan ak baayam daawut ak sax ña leen jiitu woon Ayyuba ak Yunus xisas yooyu nekk nañu ñaar fukki yonent ak juróom yoo xam ne yàlla tudd na seen tur ci alquran ñaar fukki yonent ak juróom yàlla yónni na téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeent comme ni nekk ci xadiisu abi bi nga xam ne ibnu hibbaan soloo na ko ci saxiixam ñoom anbiya yooyu rusul yi ci seen biir nekk nañu 313 mu nekk adadu ahli badr ak adadu jeyshu taaluta waaye nag ñoom adad yooyu 313 yooyu di ay rusul ñi ci yàlla tudd seen tur ci alquran moo di ñaar fukk ak juróom waaye yàlla wax yonent bi ne ko li tax ma nettali la seeni jaar-jaar ak seeni xew-xew mooy nu sabbitu bihi fu aad ak dañ kiy dëgëral sab xol bu boobaa nag mu fas fassiruuna yi dañu ne ndax aaya bi dafay delsiwaat ci aayaat yi nga xam ne yàlla day xitaab day wax ak yonent bi mubaasharatan bu boobaa yonent bi yóbbaale xeet wi walla boog xeet wi la yàlla di wax di waxal jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ñaari wajuhu yépp wér na maanaam aaya bi làmboo na ko ngir ne yonent bi alayhi salaatu wa lor nañ ko ci yàlla luñ mosta lor benn mbindéef jànko wante naag ci oote jëm ci yàlla lu benn aji wootekat jànkool teel waaye am na ci yàlla ndam ak teraanga ju benn mbindéef mostaam ci way jëkk ak woy mujj sallallahu alayhi wa sallam ba tax diineem ji ñëw mujj ñëw waaye man suuxal diine yépp téeréem bi mujj wàcc féete koo téere yépp moom yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekk sangub way jëkk ak sangub way mujj di sayidul awalina wal axirin sallallahu alayhi wa sallam kon yooyee di rot ci alquran ci xisay xisay anbiya yooyu dafa ñëw pour dëgëral yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak won ko ne da koy dollil yaqiin moom yàlla won ko ne daf koy dolli kóolute pour mu xam ne noonu mu jaar noonu la ci li mu nekk moo di li wér loolu nag bu fekkente ne ak sayidul kaamil sang bu mat bi al bi kulli wajhin wa bi kulli ictibaar ki nga xam ne foo ko jaare rekk dangay fekk ne muy ku mat anam boo ko natt nga fekk dara manqué wut mennum mbindeef la dong muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi am na benn bayt bu nekk ci mawlid bi chahri allazi ma saa qat wa man lahu lxusna faqat alayhi jibrilu habat bi kulli nuurin mu'tali bayti la boo xam ne bët bëddi da ko iqtibaas ci ibnu farid mi ñuy wax sultaanul aashiqiin dafa am bés mu toog ci xalwaam ñaari hëtif di wax ak moom muy dégg benn hëtif bi daf ne man zallazi ma saa qat wa man lahul xusna faqat ana kan mooy koo xam ne mësta def lu ñaaw ci ak dundam benn yoon ana kan mooy koo xam ne lu rafet rek rek la def ci ak dundam mësta ñaawal kooku loolu la laaj beneen haatif bi ne ko muhammadul haadi alladi alayhi jibrilu habat kooku mooy ki yonentu yàlla muhammad mi jubalaate génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer génne leen ci kéefar yóbbu leen ci ngëm yonentu yàlla muhammad moomule sallallahu alayhi wa sallam mi jibril wàcc ci moom ci ndigalal borom bi indil ko alquranul karim kooku rek mooy ki nga xam ne mos am benn ñaawteef kon yonent bi mooy asayidul kaamil bu fekkente ne moom moomu nag la yàlla di wax ne ko xissa yi ma lay nettali ci yonentu yi la jiitu woon dalay yokk ngëm day gën a dëgëral sa ngëm dalay gën a jox yaqiin waaw kon ana ñun ñi nga xam ne dañoo manqué dañoo matadi dañoo mën a fàtte dañoo mën a juum bari ay ayib lu dul ngëneelal yàlla ak yërmandeem dabe ñu kon ñun bu ñu xoolee aaya bi te seetlu ko njëriñ li lu rëy liñ ciy gën a am moo di ne aaya bii mu ngi ñuy xiirtal di ñu ñaax ci nañuy fàttaliku yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa na ñuy fàttaliku wante yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañuy nafaraat siiraam nañuy nafaraat sunnaam ñuy nafaraat diine jëm ñu indil nañuy jàngaat ay jikkoom mais nañuy jàngaat ay tawjihaatam ay orientation yi nga xam ne ci la orienté ummal islaamiya bi ak li nga xam ne foofu la woo àdduna bi pour ñu jëm fa ngir ne àdduna bi yépp bu ñu àndoon takku bootu ci gannaaw yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon àdduna bi day wëlbatiku nekkaat aljanna kon nit boo tabaxee sa kër doo ko wutal buntu kër ndax kenn ku ne dinga nga maandu ba doo soxlaal kenn dara doo wutal sa néeg buntu booy nelaw doo tëj sa fenêtre doo wut compte bancaire doo wut ay gardien ci sa buntu kër sécurité bu rëy bi nga xam ne yaa ngi koy ut te doyu la kenn ku nekk foo toll yaa ngi tiit yaa ngi jaaxle ci àdduna ngir shiddatu faqdil amaan fi jamii bilaadillahi wa mulkih loolu bu fekkonte ne àdduna bi yëpp tënku nañu ci ginnaaw sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu dana fi jóg waaye dara gannaawalul àdduna lu dul uute giñ uuteeg yonentu yàlla muhammad ak uute giñ uuteeg am njàngaleem bu boobaa nag aaya bii di ñu xiirtal pour ne bu ñu bëggee defaruwaat te liy defar nit ak liy baax ci nit xadis bu wér ba jàngal nañu ko moo di xol ne bu baaxee lumba ngi ci doomu aadama bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon mu ne lumb moo di xol li ñuy ut yépp ci ànd ak sëriñ li ñuy ut ci julli li ñuy ut ci zikar li ñuy ut ci aj màkka di ko ut ci weeru koor ci njàngum alquran ci lépp lu baax lu ñuy def ci diine ji nekkul lenn lu dul pour xol yi defaru bés bu xol yi defaroo jëmmit boroom dana defaru cëree yépp defaru bu boobaa jikkoom dana defaru comportement am defaru ay waxam defaru loolu yépp nag àdduna bi ñu ngi ko mën a amee ci ginnaaw yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jullit ñi nag ñu ngi ci ñetti martaba ci gannaaw yonent bi ñii ñu ngi ci maqaamul islaam ñii ñu ngi ci maqaamul imaan ñii ñu ngi ci maqaamul ihsaan waaye ñoom ñépp ñoo bokk gannaaw yonentu yàlla muhammad di nekk ci moom ñii ñu ngi ci zaahiram ñii ñu ngi ci baatinam ñii ñu ngi ci baatinu baatinam waaye ñoom ñépp ñoo bokk tënku ci yonent bi ñoom ñëpp itam insha allahu way texe lañ way mucc lañ donte duñ tolloo ay daraja bu ko defee nag ndekete loolu nag pour ñu am ko moom la tasawuf al islaami te bu ñu waxee ak tasawuf al islaami dinañ ci gis at tariqatu tijaaniya mu leer nañ buñ tuddee at tariqatu tijaaniya danañ wax al faydatu mu leer naññ di xol ci biir tariqa bi ngir ne at tasawuf al islaami euh, mawlaana cheikh sayidi ahmadu tijaani abul abbas biñ ko ko laajee séentu woon nañ mu wax lu bari waaye daf koo firi ci ñaari baat mu ne allam bi ann tasawufa xaqiqata ilam ann xaqiqata tasawufi imtisaalu l amri wajtinaabu nahyi fi zahiri wal batini min xaysu yarda la min xaysu tarda tegte ne wasalaam loolu mu ngi ci juz saani ci jawahirul maani comme ni mu nekk ci aljaami bu saydi muhammad ibnul mishri bi ko saydi xaaji ali xarazim laajee lan mooy dëggi-dëggi suufiyankewu waxu ko ne da daanu xaal waxu ko ne da wax lu kenn mënta dégg waxu ko ne dangay ngay fanaan a julli ba bët set waxu ko ne dangay woor koor gu amul àpp yooyu yëpp réewu ko tasawuf moom cheikhana ahmad tijaani radiallahu an waaye dafa ne dëgg-dëgg suufiyankewu mooy jëfe ndigali yàlla ak bàyyi tere yàlla nga def ko ci li feeñ waaye nga def ko ci li nëbbu te boo koy def nga def ko na ko yàlla gërëme bañ koo def yow nanga ko gërëmi muy wax ju gàtt waaye ju yaatu di wax ju leer ju wér joo xam ne amul benn jullit bu ko mën a contesté ndax jëfe ndigal ak bàyyi tere mooy diine ji lépp ba mu jeex diine ji ñaari tomb yooyu ci la tënku fi yàlla ne def leen ak fi mu ne bàyyi leen lim ne def leen nag te feddali ko lam feddali loolu mooy farata lam feddaliwul loolu mooy mandub mooy lu ñu sopp lam tere feddali ko loola mooy lu xaraam lamu tere nag te feddaliwu ko mooy lu ñu sib kon bu Seydi Ahmed Tijaani firee tasawuf ne mooy jëfe ndigal ak bàyyi tere ci biir ak ci biti am na koo xam ne bu génnee ba solu nga ne waajaa ngi bu toogee ci mbooloo sëriñ bu lam rëy rëy rëy bu deux heures et quart jotee mën a waxtu wa jot na ngir lan nit ñi gis ne waa ji waa ju fonk waxtu la waaye bu nekkee moom kenn ci këram mën naa toog ba trois heures ba quinze heures du julli mais bu nekkee ci mbooloo mi fu quatorze jotee kenn dootul am jàmm ngir mu ngi bëgg a wone boppam kooku noonu mu ngi jëfe ndigal yi ci li feeñ mais jëfewu ko jëfewu ko ci lu nëbbu jikko jooju nekkul jikkoy jullit bu baax loolu la Sidi Ahmed Tidiane wax ne ku mel noonu nekkoo suufiyanke waaye kii doon suufiyanke bi dëgg-dëgg sa biir ak sa biti ñooy niroo dangay nekk ku sellal da ngay tënkuwaat ci li sunu borom wax ne wa maa illaa li yaabudullaha muxlisina lahu diin loolu nag moo tax ñoom ñu jël aaya bii wa kullan naqussu alayka min ambaa'i rusul maa nusabbitu bihi fuaadak ne moom la ñuy dëgërloo di ko laye pour dajale bu ñuy dajale jullit ñi di leen waxtaanale mbaaxu yonent yàlla muhammad ak ay ngëneelam ak siiraam bu boobaa nag loolu boo ko tuddee gàmm yaa xam baax na boo ko tuddee conférence baax na boo ko tuddee majlisu dars muy dars bu ñuy joxe ab kuur baax na ak noo ko mën a tuddee rek yow yaa xam noo ko ko tuddee ndax gàmm ñun ñoo miin gàmm guddi mais boo demee ci yeneen réew yi ci Europe wala sax ci Afrique am na ci réewi arab yoo xam ne gàmm bëccëg la ñuy def dañuy daje buñ añee ba pare diggante fa ñuy añee ak fa ñuy julli tàkkusaan foofa la ñuy defe seen dars ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa bu boobaa bu seen siira bi matee buñ jullee timis ñu daal tasaaroo bu ko defee kon loolu mooy lii nga xamante ne nii mooy laaya jii di wa kullan naqussu alayka min ambaa'i rusul maa nusabbitu bihi fu'aadak liñ ci mën a jàng bëri na ci ay waxi mufassiruuna yi ñoom imaam ibnu kasir ak ñeneen ak ñeneen waaye nga xam ne daal aaya bii mooy aaya bi gën a wér te gën a leer ci layal ndaje yi ñuy daje di màggal juddug yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne sax du ñu wax ne sunna la waaye dañuy wax ne ndigal la lu alquran digle kon mashruiyatoom képp ku am xam-xam mbaa nga géeju ci xam-xam doo ko weddi bu fekkente ne yaa ngi koy def ci anam biñ ko bëggee maulana cheikhul islam alhaaji ibrahim ñas radiyallahu taala anhu ci gàmmu ci fikra tu mawlid ci maanaam laaye gii ci la moom def occasion boo xam ne ci la doon tasaaree daawa al ci la doon jottalile yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lim ko bëgg a jottalil balligu anni walaw aaya muy anam boo xam ne fii ñu toog la daan toog dix heures ci guddi fukki waxtu ci guddi lay toog ba fukki waxtu ci bëccëg yàlla mel ni daf ko taxañal jamono taxañal ku bërëb bu toogee fii moom Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu bu waxee ci yonent yàlla Muhammad bu jàngee mawlid bi nga xam ne mawlit boobu rek wax na ci ngëneelam Seydina Baddi ibnu Sidin mi ko taalif di xalifatu cheikh Mouhamadul Haafis al Alawi jukki fa lam fa jukki def fa lam fa def ca biir loolu yépp mu dal di teg bu ne salli ala man man xadar mawlidahu mahma zukir yakunu misla man sabar fi yowmi badril mursali ne képp ku teew fu ñu jàng mawlid moom mawlaana cheikh ibrahim di wax ci ngëneelal gàmm mawlit boobu ak gàmm gu ñu fas jox ko yonent bi bàyyi mu ne képp ku ko teewee sunu boroom subhaanahu wa taala dana la may maqaama ahlu badar danga mel ni ku fekke xare badar nga loolu màgg na rëy na foor na ba nga xamante ne nii sax ku xamoon dayob loolu fépp fuñ la woo ci ne dañ faa daje pour màggal juddug yonentu yàlla muhammad lépp loo amoon danga ko bàyyi waaye bu do jàngee mawlit ba yeggal daldi di dal nag joxe ndigal nañ jàng hamziyatul busayri mag ñi bu ñu jàngee busayri hamziya ba daaneel mu jël di ko firi di ko yaatal di wax ci yonent yàlla muhammad loo xam ne képp kuy jàngkat bu xam siira danga nga yëg ne Cheikh Ibrahim mii yàlla jox na ko jawaamiul kalim ci jotaay bi li muy gàtt-gàtt lépp loo jàngoon ci téere siira yi ak lépp loo déggoon ñu wax ko ci yonant bi moom dina ko tënk ci jotaay bi mu toog noonu la koy defee di jokkalanteeg ñoom ba bët set mu julli fajar dal di jàng burdatul busayri ba mu jeex tàkk moo koy jàngal boppam bu jeexee mu tas kaamilu alquran ubbi kaamil bi ni jàng kaamil bi ba mu jeex bu jeexee képp ku bëgg a tuub mu dugal la ci lislaam bu ñu tuubee ba yeggal mu daldi may wirdu tijaan képp ku bëgg a ku bëgg ku wi bu yeggalee dix heures jot mu door daldi bàyyi ko ci bërëb bi dugg ci néegam bu tedd bi daldi yeewi gan yi te képp ku ñëw nag bu lay yeewi xaarul yow nga jox ko addiya mais booy dem moom moo yëkkati jox la paas moom Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahim Niass nii la doon gàmmoo defe naa ne kon moom aaya boobu ni mu ko jàngale ak ni mu ko firee yemul ci jàngale ko ak firi ko waaye daf koo dund ñu ciy fàttali bépp jullit min mashariqi l ard ila magharibiha ñu xam ne kon aaya bii war nañu ci jéggee war nañoo am jàmmoo ñun jullit ñi war nañoo baalante ci point yi ñu uute ànd ci point yi nga xam ne ci lañu dëppoo bañ a diinga tante waaye ñee di gàmm yow gàmm woo nga topp ci jàmm bi daa kuy gàmm nangam ak nangam gàmm amul dalil te fekk li ngay wax yëpp bakkan dong ak seytaane moo la ko wax loo waaye tegoo ko fenn fu wér loolu mooy li ñu waxtu mayoon ci laaye ji incha allahu taala kon ñu ngi yemale foofu sunu kaddu di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp may ñu gàmmu jàmm may sëriñ bi jàmm may ay rakkam jàmm may njaboot gi jàmm waaye may mboolem waa réewi Sénégal ak mboolem kilifa diine yi surtout ñi nga xam ne ñoo bokk benn tariqa bi muy tariqa Maulana. الشيخ سيدي أحمد التجاني جم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين